mën nañoo am ay xel ñaar c'est-à-dire euh, élection ci biir réew bu Sénégal euh, boo xoolee ni ñu ko tëggee boo xoolee ñi nga xamante ñoom ñooy bokk ci processus électoral bi ci lu jëm ci wàllum surveillance ak veille je pense que aujourd'hui xëy xel mën naa dal Euh, depuis loolu gis nga li nga xam moom mooy xew c'est que mhm. débat bi li ko waral mooy justement li waraloon ñu ñu samp ab kuréel boo xamante ne mhm. duppee nañ ko atel euh, mu jëm ci wàllum transparence élection législative yi mhm. que ñoom jàpp nañ ne bien entendu l'article de la constitution daf leen yi nga xamante ñoom ñu nekk ci biir réew bu Sénégal a bokk lii maanaam heure de départ ñoom ñoo war a moom la ñuy dëgmal et que gis nañu ne parti bi fi nekk au pouvoir muy PASTEF ñoom dañoo am un avancement par rapport ak moom moo xew. parce que bien entendu am nañu information bien avant te ñoom yëguñu ko donc loolu tamit mën nañ leen ko nangul parce que il faut le dire encore une fois àq boo xamante ne ñoom dañu koy dañu koy dañu dañ ko yellool moo tax ñu koy ñu koy demande et je pense que. Euh, au vu euh, au sud de tout le monde je reviens encore une fois sur ce mot ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kujj gi ñoom xam nañu ne li nekk ci élection législative yi le processus du début jusque là en tout cas rien à signaler et on espère que noonu noonu lay demee ci li nga xam moom mooy élection législative yi je pense que euh, loolu daal jamono ji mën nañu mën nañu xel mën naa dal daal ci ci ci gàttal ci li nga xam moom mooy j'espère que ça va continuer ainsi. d'accord très bien parti bokk na ci parti en lice